président de la république son excellence Macky Sall doon wax sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér liggéey bi nga xam ni président jëloon na engagement fii ci biir université fuñ ci toll. Euh, comme ni ngeen ko gisee léegi ñu demoon ci sëriñ bi wan ko maquette bi présenté ko projet bi gannaaw bi nga xam ne liggéey nañ ci ak jëw jëwriñam yi ñu ñu boole woon sëriñ maam Thierno ngi nii sama gannaaw sëriñ amatu Badawi euh, sëriñ Koso. pour que ñu wax centre de formation bi nga xam ni président moom la fi diggee woon màggalu daaw jéeg fan lañ ci toll donc euh, liggéey bi jël na ab diir pour ñu tàmbali ko ndax centre de formation bii ñu def fii ci Touba dafa wuti ak yeneen centre de formation yi ndax dañ ko def ci dëkk bu sell ci ndigalu président de la république donc lépp loo xam ne nii dëppoo na ak lu sell ñu waroon ci waxtaan ak kilifa yi ba juboo ci alhamdulilah euh, juboo nañ ci sëriñ bi ñaanal nañu tàmbali nañ liggéey bi comme ni ngeen ko gisee léegi loolu nag président de la république dafa jàpp ne euh, dëkk bi di Touba yeeyoon na bi mu amee université bu mag bii sëriñ bi euh, tàmbali ko mu am ab euh, centre boo xam ni fa ñuy tàggate ndaw ñi ak jigéen ñi centre bi nag nekk centre boo xam ni nañ fi jàngale lépp lu jëm ci wàllu BTP maanaam ci wàllu tabax ñu ci jàngale aussi lépp lu jëm ci wàllu artisanat ñu fas yéene aussi jàngale fii lépp loo xam dafa jël ci wàllu technologie centre bi président bi ñu yebalee dafa ñu xam ne centre bi centre sëriñ mu sëñ max sa sëñ Muntaxa Mbàkke la euh, que lépp lu ñu fi def day dëppoo ak li nga xam ne moom la bëgg mooy vision bi mu am ci université bi donc loolu moo tax waxtaan yu bëri lool waaye nag dañ ci avancer comme ni ko nit ñu ko santé euh, avec beaucoup de prudence ndax euh, waxtaan ak waa sëriñ bi ba jox ñu ci ndigal donc ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xamee ne màggalu daaw jeeg président ñëwoon na fi visiter université bi jox ñu ci ndigal pour ñu taxawal ko donc ñu sant yàlla bi nga xamee ne liggéey bi tàmbali na gannaaw bu ñu sëriñ bi ñaanalee euh, ñaanal président de la république. ndax euh, euh, waaw xam nga centre bi dafay nekk centre bu li tubaab di wax centre de dernière génération moom la ñu président wax xam nga président am na ci politique am ci département yëpp ci biir Sénégal mu tabax fa benn centre muy ñeent fukki centre ak juróom yu ñu war a tabax ci biir Sénégal. Euh, Mbàkke am na ci benn Njaareem am na ci benn Bambey am na ci benn bokkul ak bii ñuy tabax fii mais département yi ci Sénégal yëpp dinañ am centre de formation de dernière génération bokkul dama bëggoon rek leeral que ne bokkul ak bi ñuy def fii ci donc Touba dina am Mbàkke dina am Njaareem dina am Bambey dina am comme ni ko yeneen département yi daamee loolu mooy gis-gisu président de la République donc centre bi centre de dernière génération la fas nañ ci def milliards ak genn wàll ci tabax bi ngeen xoolee fii ñu ngi koy tabax ci daanaka lu mat ñaari hectare ci ci terrain bi ñu am fii ci biir un hectare huit cent te surface bi ñu ci nar a tabax huit mille mètres carrés la donc war nañ ci def milliard ak genn wàll ci tabax bi def ci milliard ci équipement ndax dañoo bëgg mu nekk centre boo xam ni dafa méngoo ak jamono ak modernisation way euh, fas yéene nañ incha allahu rabbi entrepreneur bi tàmbale na fukki weer ak juróom-ñett la ko war a tabax waaye suñu yéene mooy bu soobee yàlla balaa ñuy dem màggal prochain dinañ ci waxtaan ak entreprise bi président mën a ñëw inauguré ko ànd ci ak sëñ bi yàlla nañ ko yàlla yóbbu ak jàmm